siw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo kooku ça va noonu def yaa ngi si jàmm Cheikh nam naa la naka suba si gis nga envoyé naa ki ci boucher message maa naan ko comme démb li ma doon waxtaan ak xaas moom wax dëgg yàlla gën tuba xam nga kilifa moom bu toogee wax la ay ay waxam te dëggu na li ma wax te tamit ba nga waxee gëm naa ko xam naa ne def naa erreur te sax damaa rus nag wax dëgg yàlla jox ko am man dañ maa yar musuma dépassé ma ma te démb yuuxu naa fii wax naa lu ma neex wër na yàlla moo tax gis nga jégalu naa ñëpp sax ah, ok na jàmm bari si ñun rek walaay laa na jàmm bari si ñun ñu bañ a déglu waxi waxu nit ñi duma leen déglu sax jukkee nit ku ñu dama ko xam ñaar ñuy ànd lañ ñuy ba ñaar ñuy ànd la ñuy ba noonu nam naa la naka suba si gis nga envoyé naa ki ci boucher euh, euh, message maa ngi naan ko comme démb li ma doon waxtaan ak xaas moom wax dëgg yàlla gën tuba xam nga kilifa moom bu toogee wax la ay ay waxam te na li ma wax te ba nga waxee gëm naa xam naa ne def naa erreur te sax damaa rus nag wax dëgg yàlla gën tuba am man dañ ma yar musuma dépassé ku ma ma te démb yuuxu naa fii wax naa lu neex wër na moo tax gis nga jégalu naa ñëpp sax. Ah, ok na jam bari si ñun rek walaay laa na jam bari si ñun ñu baña déglu waxi waxu nit ñi duma leen déglu sax jukkee nit ko ñu dama ko xam ñaan ñuy and la ñuy bañ ñaan ñuy and la ñuy bañ siw du mi boom ma ci xam dara lepp lu yëngu